ربي يا أحمد على محمد عليه خير الصلوات صمدي ربي يا أحمد على محمد عليه خير

yaa jàmm di leen fàttali gi ñoo ngi si ñoo ngi si bisu màggal Daaru Xuddoos bi tey fii si Touba Argentine nag àndoon ko suñu mbokk Baay Faal yi ci waañ bi ak suñ mbokk soxna yi ñu bëgg leen a dugal ci waañ bi nag xool suñu mbokk yi li ñu andi woon tey kon ñu jàll ci biir waañ bi xool suñ mbokk yi li ñu andi woon tey ñu fekk suñu jëwriñ Mara sëñ bi ñoo ngi lay ziar. waaw salaamaaleykum yaay Fall ñu ngi lay doole ziar bu baax a baax a baax. noonu leen dundee bis bi tey bis màggal gi yéen a woon ci waa ñu nekkoon ci wàccaay bis bi loo leen defoon tey ci ay bernde yooyu. waaw santaat sëriñ bi rek bu baax alhamdulilahi rabbil alamin biñ ko teewee waat wax dëgg yàlla tey lépp mën na sant nañ bu baax waaw biñ xëyee defar nañ ay ndekki wax dëgg yàlla añ yi def nañ ay ceeb ay ceebu jën ba léegi nii ceeb yi des na gars yi wax dëgg yàlla lépp lu waroon rek def nañ ko waaw fi mu nii reer yi ñu ngi def ay tufe nii waaw dëgg yàlla lépp. ngir ngir dundal bisu màggal gi rek waaw ndax Serigne Modou Moustapha moo waral lépp waaw ndax bi Serigne Touba demee moom la dénk jaam nii moom la dénk lépp waaw te dara manqué wul kon su dikkee rek lépp luñ ci def rek xeeb waaw yàlla mbokku taalibe yi taxaw nañ ci ak pas-pas ak yéene ak jëf waaw te boole boolewul dara ki wax lépp jàppandi na wax dëgg yàlla waaw ba léegi nii xéewal yëpp a ngi nii wax dëgg yàlla sëriñ bi jàppandi na lépp daal alhamdulilahi rabbil alamin waaw moo nekkoon ci biis bi rek defoon ngeen ay tufay doomu macha allah wax dëgg yàlla ah sëñ bi kontaan na ci yéen de nii rek ngeen def macha allah macha allah xaar ñu xool suñu mbokki soxna yi ñu ngi ci biir waañ bi. asalaamaaleykum soxna si na def. maa ngi fi. yaa ngi si jàmm. maa ngi si jàmm bu baax. boo tawa preparando el postre, ¿Y cómo la preparaste? ¿Y qué preparaste también? Y mm, preparé beñé y café. Y también preparé mm, chagre, que es un postre sea de mm, trigo y mezclado con yogur. Ah, eso lo que era la hermosa, no, la merenda, ¿no? Ah. Sí, la merenda. Y fue muy rico. Ah, bueno, muchas gracias. asalaamaaleykum soxna yi soxna Sofi ñoo ngi lay nuyu. waaw soxna Nogay ñu ngi lay fay. baa si jaam naka bis bi tey noo dundee bisu màggal bis bi de gis nga ñu ngi nii suba ba tey di togg di yàq di teg rek di bégal jaamu yàlla yi màggal gi moom macha allah. defoon tey ci wàllu benn tey defar nañ yëpp defar nañ ceebu jën bu weex defar ceeb bu xonq ñoo ngi nii nag macha allah di defar reer yi yaa may dégg fii daal dara manqué wu fi Nogay. lépp. bis bi daal moom macha allah. waaw macha allah macha allah jigéen ñaa ngi ni gis nga ñëw nañ ña sa desa nga ca saal ba macha allah ñëpp ñëw nañ neex na. bari na yàlla bu baree bare si barke Serigne Touba. amiin amiin amiin soxna Ndaas ñoo ngi lay nuyu. soxna Nogay ñoo ngi ziar bu wér. bis bi tey bis màggal gi noo leen koy noo leen koy duggee. moom wax dëgg yàlla dund nañ ko dundin bu neex waa ndax Serigne Touba moom amul morom waaw. tey moom wax dëgg yàlla yëg nañ nii leen daal moo ñu manqué maanaam mooy jomaayi Touba ji rek moo ñu manqué waaye wax dëgg yàlla màggal gi moom macha allah sant nañ sëñ Touba bu baax a baax a baax. ah waaw loo leen defoon nag wàllu bernde yi tey ci wàllu añ beeg reer yooyu. waaw wàllu bernde bi nag tey dañoo defoon ceebu jën yu am soos soosu crevette xam nga ñu def ceebu jën yu neex macha allah def ceeb bu xonq def ceeb bu weex ngoon gi ñu def ay touffé def nañ caakiri def nañ beñe fruits yi yëpp daal maanaam berne daal moom maanaam lépp luy xeetu baax baax si berne rek am na fi waaw moom tey moom lépp daal am na fi macha allah lépp mat na bisu sëñ Touba moom dara du ndaw waxantuma la ak bisu sëñ Modou Moustapha mi nga xam ne mooy taawu borom Touba bisam moom wax dëgg yàlla mënut a ndaw ndawul kontaan nañ si lool. ok kon loolu rek lañ leen andiloon ci bisu màggal gi fii ci waañ bi. di santaat bu baax di gërëm di ñaan suñu borom nangu lépp lu ñu fi jëf rek suñu borom nangu ko dolli jaamu jeeg tawfeex rek barke Cheikhul Khadim